mbokk yi ñu suivre ci Leewtoo TV ñu ngi leen di nuyu di leen ziar di leen yaanal jàmm di ko sàkku ci yéen fu ngeen mën a nekk waaye tey nag fii ñu taxaw stade Caroline Faye lañ koy wax mbuur ku ñu fi woo Yaxya Jóob nii lu mu fi teg 3 millions Yaxya borom Faata production waaye maar bala ñoo sore rek suñu xarit suñu wëllëre suñu lépp suñu nit Aziz Ndiaye dafa ñàkk tey soxnaam di aawam ñu koy wax maam Binta yàlla na ko yàlla yërëm te xare ko aljana di wax na ko lu ko naqari rek naqari nañu lu ko metti metti nañu parce que lu tax mooy dañoo fekk ci milieu bi mu accueillir ñu di ñu pousser pour ñuy gën a avancer di gën a progresser kon Aziz ñu ngi lay jaalewaat soxna si yàlla dogal nag bi muy am fekk nañu dugg mbuur loolu moo tax waaye daal jàppal ne ñu ak yow ñoo bokk lool waaye Mar Leewtoo TV la lamb 100 pour cent rek nga fi seetaan raxuñu ko ak dara làmb kese rock deng kese Mar noonu la demee. ñu ne Mar nañ dem ci biir stade bi loolu du mën a ñàkk.

ci loo maa ngi si jàmm. tey yaa ngi sa dëkk de Mbour. waaw maa ngi sama dëkk yi li ma lay laaj. Pakala dafa revenir en force ci lutte bi lan moo la may loolu ak lan moo tax nga def ko. waa ñun làmb lañ yaakaar benn instant ñoo ngi si bëreetóor bi yombul te instant ñu toll nii ñun si bëre simple lañ sookee ko bëre simple moo tax ñu xam ñun. ruus ñu see dellusiwaat looloo tax ñu wàccaat en forme nii entraînement normal pour ñëwaat. ngi am jàmm ana Lamine Lamine mu ngi fi ñëpp a si jàmm. waaw gis nga affaire yi moom yaa ngi ko xam. yow luur nga bind wala lese. non luur laa bind. waaw am nga yaakaar jël ko. soobe yàlla dama ko yóbbu. man nekk nga ne. caaro ndigal. numéro 2. ren ñaata tournoi nga bëree ren. Ah? ren yaa ngi si ñaata tournoi. maa ngi si 2. waaw. dama ko nga final wala. jël naa 2 yëpp. waaw dama koo jël waaw. te tey da nga koy jël. allah moom laa bëgg. di yu Bawol gépp nag. waaw di sant bu baax. ak fa ma joge Fatick. ak Ñaaxar. ak waa Touba Toul. Réfane. di la bëggee lu bari nag. di bëggee sunu waa grip bépp ak sunu waa ok jaajëf. da ngay takk li ngay takk la la maa ngi lay bëgg. waaw rebëggee sama copain copain guy gi waaw ah, doomu doy guy gi <laughs> suñu patron. waaw li ñu la takkal ah grand bi de moo ko jëli moom guy gi moo ko jox sànq suba. foo jógee kon. man gàll guy gi laa jógee. mu kaay yi camp ba camp gis nga el ba la ngay seen nële def nii lii mooy cumukaay yi cumukaay yaa ngi nii. Yaxya Jóob fi woote trois millions la fi teg gis naa fi ki nga xam ne ni mooy pakala gis fi selemele seen naa fi franc gis naa fi sal ndengeleer ah macha allah mu mel ni ki daal tey moom mbëri bari nañ fi lese luur du mën a ñàkk ak Yaxya Jóob Yékini stade Caroline Faye de Mbour gis nga stade bi macha allah guddeegul te presque fees na Yaxya Jóob Yaxya nag wàcc na bëre ba bàyyi bëre ñëw tey nga def lu mel nii moom ça veut yax que Yaxya lu leer la wax ya maar sele ngee sele sele maa ngi lay bëggee. waaw doo lay bëggee rek namu naa maa la raw sele. ana waa campement. waaw ñoo fi rek ñëpp a ngi teew di seetaan si làmb ji. waaw naka campement neex neex bu yem rek bu yem a yem waaye. ren ñaata tournoi nga participé gu ren ñaata nga bokk gu ren. bëreegul nag parce que depuis bu ma jógee si 10 millions yi ba léegi dama tawatoon quoi waaw mais instant yi maa ngi sant yàlla bu baax quoi waaw. tey am nga yaakaar fii. ah man chaque jour yaakaar laay am. Mbour li fi jël tournoi bari na de yaakaar naa. waaw mënu ma xaa compter moom vraiment bari na trop sax di ñaan yàlla bii bok si tamit. parce que bi li spécial moo Yékini moo ko tëgg. waaw waaw waaw te mosuma bëgg naa koo jël quoi. incha waaw. kon ba ci kanam. waaw bëre moom. ah di nga gis bëre seleen wala bu njëkk bi nga gis. waaw boobu la indi tey waaw. ndeysaan kii mooy Zal Ndingler yàgg maar moo finaalu nag général Malika ca Adrien Senghor bu yàggul bëgg naa la. grand Babacar maa lay ziar lu bari ci loo rek. tey de yaa ngi mbuur waaw gis nga compétition si rek jël si suñu wërsëg yaa ma gën a xam ren ñaata yoon nga participer gu ren waaw waaw jël naa ñaari làmb nag finaalu benn quoi waaw ci àll bi sama quatrième fois may génn ko sa quatrième fois ngay génn waaw gis nga waaw am nga yaakaar fii tey waay waay bu baax a baax sax boo ma gisee rek xam ne maa maa yaakaar bu wóor ci kàttanu yàlla li si kanam leerul bëri yow sama grand ga baax nga bee waay yàgg Franc ngi nii Franc ngi nii Émile François Gomis Fara Fara maa ngi yow ku dàq feej ah maag Fara nga ne maa ngi yow ku dàq feej. kilifa du feej. Ah, yaa ngi ni di man feej ma damay yàggaayu. waaw ah, mais noonu la naa moo tàng rek. daa ah, neex. ci sant kay. am nga jàmm. waaw ñëwaat nga fii de Mbour. jàng bëre rek. jàng bëre jàng bëre kañ ngay mokkal. ah yàlla na xam dañuy jàng rek. Franc ngi ni yàgg maar nee na day jàng bëre ba tey man de ni Franc di jànge neex na ma man Babacar waaw waaw kii mooy Franc mbëru moor waa parcelle seen mbëre ngii yàgg cumukaay yaa ngi ñii moom daan nañ leen ba pare jëlal kooku kooku daanu na xool sa maar xoolal kooku dañ koo daan moom pare na ci moom même kële dañ koo daan maar kooka naan na ba mandi moom koo gis mu toog ferenkulaay rek jàppal ne daan nañu ko ku siisu rek daan nañu ko jàppal lool lii mooy siisu même kii daan nañu ko xool nga ko moom it toog na mu ngay waxtaan dañ koo daan gars yi naa leen de mbaa yéen si jàmm naka yëngu yi maar bagage yaa ngi nii Yékini maar yax ya dugg si na yax yaa nge yax yaa ngi nii maar yaa ngi reetaan de maa ngi lay ziar yéen ñoo fay chef yi ah. maa ngi ah waaw waaw acca c'est bon technique baa ngi maar mbëri bu ñu bindoo fii la yi nekk kii mooy Dramé arbitre Khalifa Sow waa ndeysaan ñu ngi nii asalaamaaleykum Dramé maa ngi lay ziar. waaye maa ngi lay maa ngi lay fay maa ngi lay fay bu ngi si jàmm. sant yàlla ñu sant yàlla bu baax. tey de ñëw nañ sa raison. Thiès maanaam mbuur ñëw ngeen dëkku Khalifa Sow te mi ngi ni toog waaw wax la Khalifa Sow ndax dëkkam la ñëw dëkk mooy sa Ndiaye dëkku Khalifa Sow. xalifa maa ngi lay ziar. Euh, maa ngi lay delloo ziar. mbaa yaa ngi si jàmm. alhamdulilah. xalifa dañ koo gëjoon gis ñu xëy gisaat ko mu au niveau du CNC tey ban taxawaay la fa xalifa taxawee. bon jërëjëf bon maa ngi nuyu képp koo xamee ni da nga bokk ci axlu làmb taxawaay bi ma ñëwee tey nag euh, ma ni taxawaay bi ma ñëwee fii. Euh, en tant que directeur technique laa fi ñëwee parce que bi làmb ubbee ba léegi jotuma seetaan làmb euh, te am na lu xew yëg ngeen ko ne dañ ma nommé directeur technique bu donc baax na bu manifestation yu mel ni amee ma ñëw xool xale yi euh, ñi ci gën a ràññeeku bon di waajal ay ay manifestation yi nga ci kanam tey waaj a ñëw ay tournoi yooyu voilà loolu daal moo gën a tax ma ñëw tey. kon daal mën nañ ne fa léegi définitivement remplacé na Abdou Badji. waaw loolu am na arrêté bi génn na ministre des sports signé na arrêté bi waaw loolu moom lu am la. kon taxawaay bi lan la war a doon par rapport ak Abdou Badji mi fi nekkoon nga jël tey place euh, li ma mën a wax ne euh, continuité moo am parce que qu'on le veuille ou non. Abdou Badji def na lu rëy ci làmb euh, te depuis bi mu nekkee directeur technique ba si ñu jom si yàlla tey jii ba bi may nommé maa doon adjoint kon donc dara réeru ma woon waaw kon donc euh, continuité la waaw pendant année yi mu def ci làmb yëpp ñu nommé ko directeur technique man maa noppoon ci ginnaawam kon donc euh, fi ma dugg nii lu ma xam la. waaw. kontaan ci yow. waaw dama bëgg a wax rek ne euh, lu ma xam-xam-xam Abdou xam na lu ñu toll wala lu ko mais nag euh, nit ku ne bon da ngay nekk ci dara yàlla su ko soobee bu jeexee mu jeexal ko mais mën nañu wax ne euh, lu ne def na ko ci làmb waaw ñun nag dañuy ñëw pour continuer waaw gën a yokk waaw li amoon daal. sëñ bi maa ngi lay ma de. waaw. ñaata mbër ñoo bindu fii tey. tey 64 mbër ñoo bindu. 64 64. luur yi ñaata la. 64. léger. 64. luur ku daan ñaata ngay am. a ah, loolu koy laaj ki yor mise organisateur moo yor mise bi. kan moo yor mise bi. mi di nga am. vainqueur bi. waaw boo lire boo kayit baa ngi nii. waaw kayit baa ngi nii boo liiree rek nii lañ ko nii lañ kii. poids lourd waaw vainqueur un mille trois cent cinquante. vaincu bi six cent cinquante mille. demi finaliste. waaw ñoom ñaar. quart de finaliste yi quart yi ku nekk quarante mille. huitième de finale ku nekk ku nekk ku nekk quarante mille. waaw. mise euh, cinq cent mille la. deux cent quatre-vingt mille vaincu cent trente mille ñaari demi-finalistes yi ku nekk vingt cinq mille quart de finalistes ku nekk cinq mille huitième finaliste yi ku nekk euh, deux mille cinq cent waaw noonu la waaw. kon mis bi noonu la demee. waaw noonu la demee tey mis bi noonu la demee. kontaan ci yow. kontaan ci yow jërëjëf. maar dañ koy faj xam naa daa gaañu wu simple baa ngi da koy faj. ndeysaan day faju lu ne ci loxo bi non sama laa doon bëril wee xoos ma quoi xoos ma xoos sama baaraam bi toog nga wala yaa ngi ba tey non naa léegi nii waaw foo jógee kam maa ngi waaw parce que nga jël tournoi man waaw waaw la waaw kon di courage mais sele la sele beneen tur bi sele waaw. maar ba tey rek gis nga maam les coach su parcelle mbooloo mu ngi noonu toog maane ndey kuma gis nga presse bi ñoom Abu Ndour Abu maa ngi lay ziar. ñu ngi delloo ziar El ñu ñu ngi sant lu noo gisee tournoi bi tey fii Mbour ak Yékini. tournoi bi war naa mën a neex El parce que boo xoolee mbër mbër mbër yi fi daje nga am 64 léger am 64 lourd war na war naa mën a neex normalement waaw. tey ku ma jaar naa la. maa ngi dolli ziar yaa ngi bind rek de. <laughs> damay bind waaw. noo gisee tournoi bi tey. waaw tournoi bi neex na parce que mbër yu mag yëpp ñu ngi fii ñoom Franc Goro Sock Sélémélé assurance ñoom ñëpp ñu ngi fii kon boo galaay bi dina neex trop. assurance a ngi nii c'est bon Mar assurance. waaw yow sama waay nga. ma laa gëj a gis sama waa yow kenn mënu laa gis tamit. maa ngi mbuur rek. mbuur daa neex xanaa. mbuur a dàq Sénégal. loolu dëgg la. tey de 3 millions lañ teg sa dëkk. waaw dama ko bëgg a ñibbee rek. Ah. dama bëgg mu des sa dëkk. ay yomb wala mën na jafe. lu mën a xew rek yàlla na fi des te ma jël ko. Gora wàccaat na ci terrain bi de. Gora. naka mu ci loo ne. maa ngi ci kawam. mais góor a ren da ngaa wàccaat ci terrain bi. waaw dama wàccaat waaw. lu tax. waaw dama ci bokk rek moo tax ma ñëw di wut si comme ñëpp rek. Bakary bëgg naa. tey ngi si làmb ji. loo gis ci mbër yi fi nekk. non kontaan rek kontaan rek kontaan wax yow. waaw fii de làmb rek xam nga ñun moo amateur la waaw comme d'habitude rek di ñaanal fan si club Leewtoo yàlla def ci jàmm. musal ñu ci pexe noonu waaw loolu daal laay ñaanal fan si club bi quoi waaw rek ci yow waaw Pape bëgg nga naa sant yàlla buur alhamdulilah waaw ñu ngi sant yàlla buur tey daa mel ni bëgg ngeen de parce que rek ngeen di dund yéen wax dëgg yàlla tey ñëw nañ buur suñu xol sedd na trop ñoo la fekk suñu gars yi ñoom Bakary Ba ñoom Salso gars yëpp 100 pour baa Babacar bi waaw ñoom Faya kontaan nañ daal suñu xol sedd na trop franchement parler ci taxawaay bi du nuyu président du nuyu euh, Cédric di nuyu gaa yëpp yow tamit di la gërëm di la sant ndax taxawaay bi rafet na liggéey bi nice na franchement parlé ñu yow la ñuy bëggee yow la ñuy waaw ba foree ba daal. yéen yéen ay dooley Babacar. Salso bëgg naa la. ah grand Babacar maa ngi lay siyaar lu bëree bëri. alhamdulilah ñoo ngi si jàmm bëree bëri bëri. dangaa ñëw pour seetaan. waaw non tey damaa ñëw seetaan gisaale sama gars yi nag Babacar Leewtoo structure bu neex la nek di ñu bégal ñun ñëpp vraiment kontaan nañ ci résultat bi ñoom grand laay ñoom jigéen ñoom Bap Ndiaye ah ñoom Faya. ñoom kër ñëppa ñëpp a ngi fi ñëpp a ngi ah. waay. sant yàlla rek. am nga jàmm. sant bu baax. lan moo tax wàccoo tey. tey damaa amoon dëj quoi sama benn maam moo gaañoo. suy ndigaal yàlla na ko yàlla yërëm. yàlla na ko yàlla yërëm xanaa noo ko gisee ren. ah. ren noo gisee lamb ji. lamb babat bi neex na de moo ngi neex moo ngi dox. mais bëri dóor moom doxul. déedéet kenn mënu ko layal bëri dóor bi kenn mënu ko layal. mais par exemple moom nice quoi moo ngi neex moo ngi dox am na organisation am na yar am na xaalis nice quoi waaw lépp moom waaw. kontaan ci yow. waaw bëggee waaw fan si club Babacar aja Babacar. <laughs> Faye ci loon. waaw ah, si jàmm garaam. naka yëngu yi Faye. a ah, si kawam bu baax kañ. tey daa mel a ngi ci biir Mbour. ak Yékini 3 millions. waaw neex na moom Mbaye lu mu ngi koy yëngal Maodo mu ngi teg normal waaw. kontaan kontaan waaw kontaan nañ trop di bëggee fan si club Babacar yëpp di la bëggee yow grand bab amuñu sa fay kenn du yéen waaw non non yéen a wóor yaa gën a baax yéen a may dooleel amuñu sa fay grand babs yal na leen yàlla yokk faya bu ninki na kaa ngi nii bu ninki na waaw amul ragal Cheikh Tidiane Niang waaw terke nam no refi ay to sare er nuno sere er yon fanone eh ammanor kadam ɗo rembi o ha cosare e non ɗo sere e riyon fannude e amaror kadam ɗo rembi o ha cosare e non ɗo sere e riyon fan da nga bàyyi fecc doo fecc. feccal. non mënuma fecc tuuti. dama télé fecc ku waa. yëngatul tuuti. maa lay ziar. fii la waree. yaa ngi door a wàcc ren. waaw maa ngi wàcc mais xam nga rek ay demi final lay daanu rek waaw. maa ngi ñaan yàlla yàlla may ma bii ma jël ko quoi incha allah. ren ñaata yoon nga ñaata yoon nga génn bon ma génn naa six fois. ma def quatre demi finaal benn bi ñu disqualifié ma benn bi ñu daan ma pakala daan ma quoi waaw. tey am nga yaakaar fi waaw maa ngi am yaakaar bu baax kay. ana di ñaan yàlla yàlla may man dam quoi waa Joal a ngi foofu rek. ana asan mu ngi foofu. mu ngi si jaar bu baax a baax. waaw dina ko dégg incha allah. waaw allah waaw. maa ngi lay xaar Joal bi incha allah. c'est bon. booy bool bëgg naa. delloo ziar Babacar. ci loo ne. nice. tey de ngi Mbour. maa ngi Mbour waaw. fii mas nga fay jël tournoi. non demi final. bu may def poids la see. waaw. tey kon. waaw ñu ngi ci di ñaan yàlla yàlla suturaal rek bëri nañ premier tirage di ñaan yàlla dem jël final bi rek. incha allah. jaay Babacar kontaan mu mel ni tey ñu ngi mbuur ba tey rek fekk fi Ada Fass mu bëre samedi comme tey daan Bébé Bismi tey nga takk sa ngemb ñëw mbuur félicitation laa lay wax ci victoire bi nga jóge waaw merci merci Babacar merci mais tey suñu teewaay fii suñu papa yi ni moo aye te ancien lutteur la waaw moo rek moom rek moo tax ñu teew fii te en plus ñu amuñu loolu làmb ñu làmb rek lañu am ñun bëre fu mu war la ñuy dem barki borom Touba lamb rek la ñu damay ñëw samedi pass sa combat ak Bébé ngeen dëkkante nappante ñu ñëw ba ci géew bi nit ñi seetlu ka ni ngeen di bëre coow lu bëri am na fa lan moo waraloon coow li dalaa ragal wala da nga koo ragal wala lu xewoon kera. non ragal wasa laamu moo bindoo noonu xam laamu moom day coow il faut ak ñaari laamu yoo xam ne moom dafa soxla woon man ma soxla. ay foo mu métti noonu rek la mënoon demee yàlla may na ma ndam maa ngi koy encouragé ndax tee combat yàlla may ndam. am na ñoo xam ne dañ ne jël ko daan dafa yomb am ñoo xam ne dañ ne sax xaw na ragal yow loo yëg loo gis. jëlam ko daan dafa yomb man damaa mën a bëre Babacar barke borom Touba man damaa mën a bëre man aw ma doole damaa mën a bëre xam naa ne aw ma doole mën a bëre damaa mën a bëre. noo ko daane mën ngaa dikkaat ci ni daane. waaw. dañoo bëre mu door ma uppercut ma door ko uppercut mu faaxaat ma mu rombal ma ko ma daal di ko mu xaw a résisté après mu ñëw pour kottu ma eh, bu may kottu rek ma dawal sama tànk bi door ko mu daan mais ragal geek yooyu ñu ciy wax amu ci ragal. saa waay Tata Pet barki borom tu waa jàmbaar la. Uh-huh. léegi nga daan ko coow li bari dafa mbër dugal recours ba génn ñu jox ko ñi naan Ada Fass dafa ñi naan nangam sangam yow sa xel ci lu ne. ah man de pare naa pour bépp mbër ku ma jox rek baax na. ndax de mbër laa ko wax damay bëre aw ma ku may taamu ku ma jox rek pare naa. daan de dina la daan de yokku mboot mbaa daanu la wala jël amagul ñu nga ca suuf da koy daan bañ na ba tey de maar yaa xool bëre simple lu ne nga ciy gis wàccal maar jeune damay dem damay dem après dina ko daan bàyyeegu ko de laxasoo ba mitti na de. yokku mboot ay waay daanu am na jël ñu nga ca de cey mbuur dëkku Bombardier ndaysaan ñu nga ca de da yokk mboot de ndeysaan dina la daan de ay jël yu garaaw nga fi gis dañoo mën a bëri mbëri simple yi dana la war ndombo kat appi amulam daan na ko aawoy ah daan ba mu tëddal boppam jógal sangu waay mbuur neex na waay ndeysaan ñu nga cale mboot bopp ba daanu nga bopp moom fu laal suuf jël am na ndeysaan gis nga fii bëre pire fi am gis nga Ada ki muy bëre Babacar ñu combat dañuy bëre booy seet euh, lii mooy jàngat ci bëre man daal lii bëgg naa ko ci xale lii Ada Fass di def nii dëggantaan samedi comme tey la daan Bébé Bismi tey mu ngi fii di bëre simple jël nañ ko Ada mboot na ko xale ba bañ na de ñu nga ca de Ada génn na Ada dañ lay wër Ada dañ lay daan buti nañ la dóor ci suuf laa ilaha illallah e eh, Bukare waa lii rëy na de lii rëy na kii kàlla kii kan la Papa moo daan Ada Fass. Pakala si ñun moom Pakala si Papa wala nga ne Idi rek. Idi kon Idi daan na Ada Fass da koo buddi ba ca kaw dóor ko ci su xool Ada Ada waaru na Ada bi dóor def maar gis nga ni ko booy bi def dañuy bëre fii. non ni mu def dafa rëy ba. da koo buddi ba ca kaw. waaw ci suuf làmb ngi daan ba sànni eh eh way Modou Lo xarañ loo daa xarañ loo Yaxya Ro Yaxya Jóob a refa njigee ay waay mbay ak moom man daal mbay ak xool xale bi waaw jaayul fokki sa ngem joxoñ suñ borom nee na bakkan bi rek loolu Modou Lo billaay way wi la way. kenn du moom. xarañ loo. kooku dafa am mérite. eh xarañ loo. dafa am mérite. le roi des dafa am mérite. doomu ndeyu Ibou dafa am mérite. Papis xarañ loo. dafa am mérite. borom PA. dëggantaan. kay Modou Lo. kenn du moom. waay lii rafet na waay. waay lii rafet na waay maa ngi nii yaram bi daa tàng de trop sax <laughs> waaw ndeysaan ndam rek foo jógee betandi bitanti waaw Ganja Fama. moom la de. eh Ganja ngi. waaw waaw maa ngi nii. Ganja Fama. waaw waaw. Maru Ba Karima. ana waa ana waa Pitenti. ñoo ngi fa. ñu si jàmm. di la laajte rek. ndeysaan. ñoo ngi lay rek si la. Eh, ganja. Ganja ngi. Ganja Fama. waaye Ganja waay. Mamadou Ba Petit. ndeysaan. waaw waaw. Ganja Ganja hôtel waaw waaw waaw waaw ndam rek waaw waaw ndam rek barke yàlla ndam rek. bég ci yow daan na ko de wala daan na ko kay waaw fàq mu ñëw mu delloo fàq la nga ñëw nga bañ mu delloo la nga daanu jeex na jóge ca biir waaye arbitre soufflé waat na diggante monument ak Gandia Fama arbitre soufflé waat na monument ak Gandia Fama waaye Siaka Falang ci géew bi boo xoolee ñetti combat ci géew bi ndeysaan gàncax nga koy puus gàncax koy puus gàncax fàq na ko gàncax daa bëgg bëreeg moom de gàncax mi am nay pexe de et eh, si ko ak Babacar waaye sama turandoo ba waaye Babacar maar bu lee yëkkati na ko daan na eh, waaye si ko Fall waaye si ko si yàgg dañ koo yëkkati mu wàcc yëkkatiwaat ko moom waaye Babacar daanu na ay waay Babacar waroo wona a daanu tak nga rip ak suuf waay xool ma loola ca koñ ba ganja faama loo wax ma ma ne turam bi doy na waar. turam bi gànja faama. waaw dëkk. waaw xam luy gànja. daa mën a bëre nag. ndaa ma lu saf sàpp la gànja faama gis nga boo xoolee boobu ba tey mooy wër bëre bi nag. eh waay. waaw. loolu yoon la. waay Maodo Faye waay.

sooy loolu ñu nga ca de gaaña ndengeñ na ko de gàncax koy puus rek dina ko war de wala yëkkati nañ loxo gàncax faama gàncax na ko par avertissement ndeysaan Fara dina ko daan Fara war na ko ay waay Fara na ko. da lay daan de doo ci génn de kat appi amagulam kat appi amagulam Franc dina ko daan daan na ko ñii Franc da leen ëpp doole maar Franc mi da ëpp ñii doole dañu doole Sal Ndeng leer ak Biram Boy Sal ak Biram Sal Ndeng leer Biram Boy da lay daan de lonku na ko caxabal ñu ngay lonkaan tey caxabal lu nar a foof waaye bëre ba tar na de oh mboot mboot biram booy mboot na mboot muruy oh Malick Niang eh, waay waay Adama Diouf waay Adama Diouf waay jàmme fay leen wan ginnaaw ak caat bu mbuur fay caat combat yaa ci biir fii moom bëre rek hey xale bi da koo bëgg a wër waaye ndax jàmme fàq nañ la bi takk na ko hey hey xale na jàmme fay daan nañ jàmme fay caat bu mbuur daan na jàmme fay xool caat na mu toll xool jàmme ay waay ay maar lambi sempale ngi lamb euh, lamb dafa sàjji daa roos jël nañ la jël nañ la rof na ko ko de kalbal wa eh, ci suuf ay waay waay buddi sànni ay waay lii waa kii kana ante ñu nga cale dina la war de sey góor a sok aada booy bawal ca koñ ba jël na ko jël na ko daanu amagul de maar xoolal bay na bopp ba ca suuf daan na ko xale yi dañuy mën a bëre action yu garaaw ngay gis xool fee xool takk fale moot mu bañ jiital na ko jiital na ko dinga nga daanu war na ko de mbaa doo daanu da doon mboot ñu suruxal ko danga ngaa surux mbaa di nga génn da surux daanu nga da surux da doon mboot surux jógal yaa mboot yaa surux yaa daanu góor sab ak aada booy bawal waa parcelle lañu de. daa mel ni ñoo bokk écrit de looloo ma ci jaaxal ñoo bokk écrit day mel ni de booy boo léegi dem na door dooraat ñu xool ndax dinañ bëre war na ko góora lu war na ko ndombo war na ko aada booy boowan war na góora sok ndombo dina ko daan wala du ko daan góora ang ca suuf da koo bëgg a dina ko daan daan na ko de daan na ko de jël amagul de loo ci dégg ñoo bokk de daan na ko daan na ko aada booy bool daan na góor a soog da koo war ba suruxal ko daan ko bës ko saan ñu nga ca de faamara bu simal ak pakala bu mbuur Mar li ngay filmé nickel na li ngay filmé nickel na de. dëggantaan. macha allah. cey mbay ak Loum li muy way nickel na. neex na lool. waaye cey Maodo Faye li muy tëgit nickel na. waaye kenn du Yaxya c'est le roi king. ndaanaan la ci biir ndaanaan yi. làmb may na ko lu ne mais mi ngi may lamb lu ne tamit. waa lii la lii mooy yoon. maar fa nga dëngale ba a dëggantaan ba am fa ndox. ba naan sangu. wëgg sa jur. foofa wa yaakaar naa ne. bu dem teen la war a bokk ci ñu koy suul. waaw déedéet. déedéet war di suuxat. waaw muy màgg di am ndox. ku ñëw mën a root mën a naan. Ah. yax ya la def. lamba ko may li mu am. mu ñëwaat ci lam di delloo lam mu njukkal. ñu nga koy delloo def Fata di jox ay mbër xaalis. di teg ay miis. ñuy bëre. defe naa loolu la mooy la moom la ñuy xaar ci moom te loolu la def tey. kon Yaxya bu Yaxya Baasul. Yaxya Joal. Yaxya Ndakaaru. Yaxya Sénégal. Yaxya international. avertissement Famara. avertissement paka la kon bëre leen ku ne am na benn cey Pakala daa na bi jëli na ko. xale na ko. waaye na ko maar na ko daan. na ko Pakala daan na ko. Fara ak Boy Mbour Fara ak Boy Mbour Fara ak Boy Mbour Fara ak Boy Mbour Boy Mbour Fara ci Mbour la la fekk xaw ma nu muy def yow Mbour nag ci stade Caroline Faye ci Mbour 3 millions ci Mbour Yékini teg ko ci mbuur booy mbuur ci mbuur di bëreeg Franc ci mbuur kon booy mbuur eh daw na jël Franc génne ko wañ na ko jàpp na de ca geenu ngembala de xale ba freiné na ko loxo góos bañ mu liggéey bu liggéeyee du baax déedéet da takk. da lay yëkkati daan da daan daan na ko a way doole on de Franc ba mu sotti Franc mii dey a ah, ba mu sotti ba ci kanam maar da koy mboot ba bañ na xale ba dina daan xale ba war na ko hee laa ilaaha illallah laa ilaaha illallah noon naa la fii boo fi ñëwee ay ponkol ngay gis ay xale yu ndaw di leen daan ay jël yu rëy ay ngan di jël Pakala ak Boy Baol jàppante nañu Boy Baol ndengeñ na Boy Baol 2 ak Aliou Faye Pakala da koo bëgg simpi daa diis daan na ko laa ilaaha ee eh, Boy Baol waaw waaw Pakala dóor ko ci suuf booy bawol de def lool dem na demi finaal loolu la def njool la de avenir làmb la xale bii maa la ko wax booy bawol mii dem na ca pakala ndaysaan maar bàyyi ko xel pakala booy bawol fekk na la mbuur ginnaaw mook Mor Gandia ak Mor ñoo nga ca de gagné nañ la par avertissement Mor Seye Gandia jël na ko war nañu Gandia Fama Gandia dañ lay daan daan nañu Gandia Fama awoy Mor daan na ko ndeysaan eh waay la nga bëree ëpp gànja faama la nga bëree ëpp. eh Fara ak Bawal Fara da koo Fara Boy Bawal final bi parcelle la jëm parcelle la jëm final ba parcelle la jëm ca Modou la jëm. ana booy fay tey ñëwul séeri sira booy fay takkum jabar tax mu bañ a ñëw munoon ngaa ñëw bëre si nuyu naa waa mbuur gépp sama grand raay ba di nuyu soxnaam Philomène waa raay moo ñu dalal tey Mansour Diop numéro 2 maa ngi koy nuyu waa mbuur géej e taw na jëli ko mu génne ko waaye du mën a ñàkk Aziz Ndiaye maa ngi koy jaal waat du ma tàyyi di ko wax ndax koo xamul nam la na koy def nam la defa tax Aziz daa am cër bu mu jox Babacar te ma bëri ci morom daw na jël ko mu génne ko ñu ngay bëre de Franc Bawal Aziz yàlla na yàlla yërëm sa soxna soos ta xara ko aljana barke yonent bi sallallahu alayhi wa nit ku baax nga daw na wër ko laxasu ne ko door na ko ci suuf daw na wër ko laxasu ne ko door na ko ci suuf laa ilaha illallah oh buddi door ci suuf ay Franc laa ilaha illallah oh bu di dóor ci suuf ay Franc noonu na ma duma combine damay bëre bëre bu dóor ci suuf